mes chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba nopp duñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu ànd ak yéen émission bi di nga xamante ne mooy xew-xew nga xam ne fépp foo xam ne xew-xew bu amee rek dañu fay fas yéene dem ànd ak yéen jamono ji nag bi yëpp ay di jàmbat li xew ci réew mooy li nga xamante ne mooy euh, bidonville yi nga xam ne yëpp dañu ko démolir li ko dale fii ñu nekk nii nga xam ne mooy pont HLM bi yéen a ngi seen fële cité nga xamante moom la ñuy wax cité imbécile ñu yëkkati leen ñi nga xamante ne aussi tamit ñu ngi woon fii si ancien piste bi ñoom itam ñoom ñëpp ñu yëkkati leen ndax ay dëkkuwaay la woon yoon yoo xam ne ay dëkkuwaayu doy waar lool lool lool la nañu yëkkalati leen nag bi ñu leen yëkkatee fi mu toll nii ñoom ñëpp dañu tas un peu partout si Dakar fenn si lieu yi nga xamante ne fi la yëf yi amee fi nga xamante ne nit ñi ñu ngi fa moom la ñu nekk nii fas yéene dugg xuus xool li nga xamante ne ñoom moom la ñuy dund ndax ay nit la ñu woon ñu fi dëkk a ati tey fi tey ñu ñëw démolir yi nga xam ne bidonville yi amoon Dakar yëpp kon Cheikh dag may topp ñu daal di xuus xool ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon foofu bu ko defee xool ñoom na lañ koy dundee yow fi la fekk ni si pont HLM bi da nga bokk si ñi nga ne dañ leen doon yëkkati bokk si ñi nga xam ne dañ doon yëkkati léegi samedi ba léegi ñoo ngi si mais man dem laay soog a jóge Bawol ndax dañ ma woo sax ne ma ñu ngi toj cité bi ci laa ñëwee ndax euh, bëggoon na ma teel a ñëw sax ay dimanche laa bëggoon ñëw mais dama amoon benn tolof tolof bu ma daboon dem si ngoon laay soog a ñëw mais bi ma ñëwee dem si ngoon ba ay 23 heures maa ngi fi léegi bi ñu fi nee ba ay 23 heures takk der yi dañ ne ñu dem leen ba suba bu subaa dinañ bàyyi ngeen jël seen i bagages boobu ba léegi ñuy patienté ba tey bàyyiwuñu ñu gis nga gars yi di daw sax danoo yaakaar ne noo bàyyi te bàyyiguñu ndax bagage yëpp mu ngi biir ñu ngi daane bagage yi ci biir. mais Cheikh xoolal pont bi actuellement nii nit ñi ñu ngi daw fan la daw nii di jëm. ñoo ngi daw jëm ci si bi fii mu nekk sax oto sax mën na fël nit instant yi seen i bagage la ndax biig ba léegi barki dem ba léegi sax ñu ngi xaar seeni bagage gis nga danoo wax danoo bàyyi moo tax ñuy daw nii. ñuy pour jël ci bagage. ñuy daw pour jël seen bagage seen man mii di wax ak yow sax sam bagage mi ngi ci biir xam naa ne bu ma demoon gaaw jël ko mën naa am ñu jël ko sax ndax ñi taxaw nii ñoo bokk benn kër chaque mois dañ doon fay chaque mois dañ doon fay luyaas ma sunoo tardé benn weer mais bi ñuy tooj yéegalul ci kenn nee na dañuy tooj danoo nekk ban dem tabaski rek ci lañ dégg ne dañuy tooj voilà mu ngi noonu Cheikh ñu dem tamit ak ñeneen am na ay soxna yoo xam ne ñoom itam ñu ngi fi Cheikh am na ay soxna yu nekk nii soxna si ñu ngi lay nuyu. man Touba laa jógee depuis démb 4 heures ba suñu joon yàlla maa ngi taxaw bii si guddi aw ma fu ma tëdd nga lii damaa dugg si asalem ñaan am fu ma tëdd sama bagage yëpp ak sama bagage yi doom yi mi ngi si biir après nii fu ma jaar damay delluwaat Touba ay xale yu ndaw laa fa yore bi ne ni moom yëf yi dikk na sonn nañ ba pare bilaay bilaay. ñu daal di wéy la rek daal di continuer na le waaw. nan ngeen fa dëkkee woon. ah ñun de jaam ak salaam lañ fa déggoo di liggéey du daan suñu doole suñu xëyee wuti bagage ñëw teg di jaay man ay yére laa doon jaay waaw mais wax fa ne yàlla lu ñuy wax ci cité bi man ak li ma fiy gis bokkut xëy na nag ñoom ñoo koy gis ndax man aw ma génnukaay man sama sama kër laa xam sama ni sama place su ma jógee sama place maa ngi sama kër su ma jógee sama kër maa ngi sama place su ma fa jógee sama kër mag laa jëm mën naa am semaine du ma ko gis kon mënumaa xam mënumaa wax ne lu bon lii moo nekk ci cité bi ndax ma ko fa mais wax dëgg fa neex yàlla li ñu def ni métti na métti na ba ci kanamu yàlla ndax imaginer jël sa bagg jël sa doole def ko ci xaalis liggéey ko ba am sa xaalisu bopp te xaalis boobu mënoo koo jëfandikoo nga teg ko fi ñu ko teg lii ñuy daal di yóbbu yagaas ñuy daal di yóbbu sa place ñu boxoñ ko dara mu kiwisaar bu 1000 francs sax mënoo ko génne ci biir place ndax loolu neex na ci loo xam ne valeur 300000 nga fa dugal waa sama néeg lañ fa dajji xaalis laa fa denc pour wutee ko néeg su ma ñibbisee tabaski xaalis boobu dañ koo dajji yóbbu loolu neexu ci xol ñoo ngi nii seen demb bu ñu génnee suñu yére li ñu jot a génnee kese laa la wax de ay dagg-dagg lañ fa génnee suñu yaram yaa ngi nii lii neexul ci xol si yor ay say yàq li ñëpp samay rakk lañ maa leen yor neexul ci xol ku nekk say bagage a ngi ci biir ku nekk sa xaalis a ngi ci biir neexul ci xol ñun sonn nañ sonn nañ trop ba ci kanamu yàlla ñun xamu lu bon li ñuy jugé fii ba mu war a tax ñun def ñu jëf ji bon ji ñun xamuñu ko wax defa neex yaa ñun gisuñu jëf ju bon jooju ñun liggéey lañ xam wàcc liggéey dugg suñu biir kër suñu amee suñuy soxla doxuji ko suñu amee loo xam ne war nañ koo faj ci suñuy waajur wala suñ suñuy njaboot ñu ngi koy def waaw ñun ñii xamuñu lu bon waxuñu lu bon defuñu ko barki alxuraani karim laa la wax am na lu bon loo xam ne ñu ngi koy def ci biir ñu ngi koy wax ci biir cité bi ñoo ci àll bi fii ci biir cité yi ci biir koñ yi fii lañ koy def lu bon ba pare daw dugg si biir koñ bi so waxee ñu naa waa cité man de yàlla man sama bopp laa xam xameew ma kenn lu bon mun na naa gisel kenn diw day wax lu bon mosuma gisel kenn diw day agressé ak nangam ak nangam mais man mën naa gisel sama bopp ne liggéey la xam daan sama doole liggéey wàcc sama neex xaw ma benn kenn ki dugguma kër jàmbur xaw ma lu nekk ci kër jàmbur léegi nag man li may mën li may ñaan si àdduna waxuma ne loolooy am mais li may ñaan nañ ñu jàppale ngir yàlla ak yonante bi te jàppale ñu wutal ñu foo xamee mën nañ faa dëkk wala ñu jàppale ñu jox ñu loo xamee ñun war nañoo mën a wuti fu ñu dëkk ndax métti na ba ci kanamu yàlla ay njaboot lañu yor wëcc suñuy waajur ci ginnaaw di faj di fa faj soxla am na ñoo xamante ne fii nii nii tey ji cité bi suñ ko tëddee tey ji dañoo yaakaar ne ñoom dinañ nekk ci jàmm waaye barki alxuraani karim duñ nekk ci jàmm cité bii saa yuñ ko tojee liñ fi doon faj fii nii autoroute bi fii ku fi wàccati wala nga yegg pont bii bëccëgu ndar kama lañ lay rey fii ndax cité bi ñoo leen doon euh, arrangé te loolu amatu fi gisatuñu kenn koo xam ne war na leen a dérangé bëccëg ku fi yeggati lay rey te bandi bi lay na mënoon naa ñàkk a dëkk ci cité bi te wax fu wax ju bon naan cité imbécile est-ce que loolu neex na ci xol. bu nekk tey jii boo compté woon bagage yu nekk ci biir mot na 5 millions te mënuñ ci jot dara suñu kër yi nag moom kenn waxuñu ko man 5 bu ñu julee 5 heures ba pare ci lañ ma woo fek maa ngi sama ginnaawu dëkk ñu de dañ koy toj man est-ce que loolu mun naa nekk léegi fu mu nekk nii toj nañ ko ba pare waaye suñu kayit ak suñu xaalis yëpp gars yi jël nañ ko du kenn nag ay police ñoo ko jël ay gendarme ñoom ñoo ko fi jël kenn jëluñu ko. suñu benn mbisi sax mënuñu koo gënaale suñu bagage bitik ak suñu virgo yëpp police yi ñoo baare yoon bi ne kenn du fi dugg kenn du fi génn génn nit yi ba pare ne yéen a ngi ñëwaat ñëwaatuñu yóbbu leen arène nationale sànni leen foofu dugg ci suñu kër yi jël suñu alal yëpp ba mu jeex ñu ñu nii nag barke demb ba léegi dimanche ba léegi kenn ku nekk ba ne da ngaa naan ndox da nga koy ñaan say mbokk mu may la te kooku du dëkk ci pak bi ñun nag comme li ma loon wax rek ñun moo ñu fi indi ci dëkk bi la ñuy judoo war fii dee war fii dund léegi nag li ci des yëpp ñu bàyyi ko ci loxo yàlla suñu borom waaye li ñu doon wax ci suñu pak bi man mi Aliou Kama képp ki ma gis xam ne man du ma nit caaxaan léegi nag man li ma ci métti même ab nguna sax boo ko yoree war koo génni boromam ginaar boo ko tabaxee nguna war koo génni xanaa da nga ñëw ci moom ne salaamaaleykum boog génni ginaar yi ba pare doo nga ñëw toj waaye nga ñëw keru jaambuur ak lokaasangam yëpp nga ñëw a ñëw rajaxe man daal looloo ma jaaxal te damaa jàpp ne xanaa boog ab muus sax boo ko luyee boo koy génni palaasam da koy dax ba pare sax nga doog ko ne génni waaye ñun nag gisuñu ci loolu dara waaye li ci des nag nañ ko ti loxo yàlla suñu borom kuñ ci mën a jàppale nag te yàlla tax ñun ñu jotaat suñu alal li ñu fi investir man mi sama 4 million foofu laa ko ñàkk gisuma tos. yow def nga fa man yàgg naa fa de est mot lay mot juróom-ñetti at de waaw bu fa dekkee ba léegi daal foofu laa ne samay bagage dama jël samay bagage defar sama néeg dem tabaski de ba ma demee tabaski ñetti fan laa fa am mu ne dañuy tëj cité ba tey laa doog a jóge village ñëw. wàcc ci ore bi xool bëgg a dugg mu ne ma soxna si fi dee yow dangaa am bagage bu pare nga ci ndax bagage fii amato fa bagage loolu laa am saak bi ma gadu ne moom laa tey léegi laa wàcc dara génnewu ma ko maa ngi ni waaw damaa ñëw rek yéem ci ñoom mu ne moom soxna si mënoo dugg ndax say bagage xam nga ne pare nga ci man ne samay pièces ñu ngi ci biir saak ba ak sama matériel yëpp mu ngi ci biir génnewu ma dara maa ngi nii ni ma toll ni saak bi ma gadu moom laa yor génnewu ma dara Euh, juróomi junni laa doon vingt cinq mille laa doon fay. te borom kër gi wax leen ne woon dañuy toj kër gi. déedéet waxul dara ndax ba ba ñibbi nii fay naa lu yaas fay nañ ba pare fay naa doog a dem tabaski waxul dara. yow loo fa yàqule. man yëpp laa yàqule ndax génnewu ma dara maa ngi nii sama lal sama samay bool ak samay cin yëpp te génnewu ma dara daal. dara génnewu ma dara saak bi ma téye nii ñib si nii moom laa yor génnewu ma dara tey laa ñëw génnewu ma dara daal samay pièces samay doom yëpp ñu ngi ci biir saak ba pièces yi sax bu ma ko waxee mën a génnew apare nga ci sac bi daal génnul yëpp génnul génnewu ma dara kenn génnu ma génnewu ma dara. yow at. man def naa fi depuis 2011 bu ñi ñu doon repartir euh, lii bi euh, bokkoon naa ci depuis jamono yooyu laa fi dëkkoon waaye dama doon damay dem dëm di dikk diggante fii ak dëkk ba daal. yow ba am foon ay bagages yoo xam ne yu yàqu waa am naa fi ay bagages yu dul jeex yu lu yàqule. Hmm? waaw euh, su ma nekk dama ko installé woon amoon na tele écran plat ak oufor mooy yu bees yooyu noonu amoon na armoire. Euh, suma ñetti valise soxna yi ak man mii suma ñaari valise ak ventoleur ak matelas boo xamante ne si julli ji rek soxna si diggoon na ma pour ma jënd matelas matelas boobu maa ngi ko doon jënd quatre-vingt yooyu yëpp bokkoon na ci. d'accord mais cité bi dañ ne dafa bëri ay deftetu ñaawteef fi fu nekk moo waral tax ñu mujj koo tas parce que xam nga si bidonville yi Ndakaaru la bokk yow mi fi dëkk depuis 2011 ba léegi euh, est-ce yaa ngi doon gis ñaawteef yooyu fi doon am jaay sa bopp agression yeeg yooyu yëpp. yooyu yëpp amoon na mais c'était au jamono du quatre 2011 euh, jëm ci ginnaaw ba 2012 13 waaye depuis que loolu jamono yooyu noon ba léegi ni wax dëgg yàlla euh, tur bi rek moo si desati daanaka parce que fu mu nekk ni ay néew di doole ñoo fi dëkk waaye tur bi jot naa yàq ba pare ku dégg lool rek wala ku gis lool rek day jàpp ne loolu moo am ci ci secteur bi fekk nag daanaka loolu amul. Euh, ay ñaawteef yi boo xoolee ci jamono jii nii même bu ñuy éclaté ci wàllu réseaux sociaux ti ay euh, yeneen secteurs yi ngay degg du ma tudd nag balaa may yàq dara comme dañuy defar rek dañ koy defar rek waaye nag fii nii ay ñaawteef amatu fi jamono jii nii wala ñi nga xamante ne ay bandi lañ fii ay new di doole ñoo fi dëkk ndax man mi mi ngay waxal ni sénégalais la cent pour cent ay sénégalais ñi fi dëkk kenn xamul ni ñu toll te dama ciy dooleeku rek soxna si wax dëgg yàlla ni ni ñu ko defee nii jaaduwul fenn rafetul fenn ndax ñu ñëw ay 4 heures du matin man lii ba muy am man si suma jàkkalaa lañ ma woo téléphone soxna si boobu maa ngi virtu comme téléphone bi atteindre laa koy def ma pare virtu ma gis suma six appel ñetti appel suma soxna ak ñetti appel yi ma gisul yi ma xamul ma ne xaaral ma woo d'abord suma soxna bu ma ko wooyee ma ne li kay xam naa du jàmm parce que musta am à 4 heures du matin léegi ma wooyee soxna si nag mu ne ma ñoom ñëpp dañ lay encadrer ñu yëbal yëpp leen si ay minicar ñu yóbbu leen stade arène ba ma ne ko ba jàmm mu ne kenn xam laa wax ne firnde lii la ma woo fu may liggéey ma expliqué leen ñu nee ma lan moo fa xew ma nee leen kenn mënu leen wax firnde lii moo xew ñu yóbbu man tam ma jël tax obligé dem foofu mënuñu autorisé wu ñu ma sax ma dugg ci biir cour gi dama mujj a jënd ay ndekk yu bari comme soxna si di moom kese moo fa nekk moom ak dëkkandoo ma jox ko benn policier jox ko numéro soxna si mu coordonné ak soxna si ba ci biir arène ba mu jox ko soxna si soxna si pàcco ko ak yi mu dëkkal foofu mooy dëkkandoo yi mu dëkkandoo woon euh, waaye nag na nga xam ne lu mel ni trafal ay wala puso bu gën a ndaw kenn génn ko fii du man mi du keneen man mi yëre ma soloon nii sànq nii laa jógee Colobane ma jënd yii nii ma changé wu soxna si moom yëre yi mu nekkaloon depuis keroog le ce jour ba léegi nii yooyu la nekkal muy keneen ak keneen ak ki munta doon soxna si. kon daal métti na lii kay weesu na métti na li kay wax dëgg yàlla ñi ñu waroon soutenir ñoom ñoom ñu def euh, trottoir bii ni loolu lañ koy mën a waxee parce que ni ñu ñëwee woon bu ñu nee sax na nga gàddu sa bagage loo ci mun a gàddu rek bul dugaat loolu di nga xool lu la gën nga yóbbu ko waaye fu mu nekk nii du waay du yeew ak yére du yeew ak bagage du yeew ak dara du yeew ak fu ngay jaakaarloo lii kay kenn xamul fu ñu koy jooytoo soxna si wax dëgg yàlla neex borom bi. depuis quatre heures dimanche lendemain bi la ñu fëgg nit ñi yee leen ne ku am xaalis ak pièce na nga génn da ngeen ñëwaat léegi yaa ngi dégg soxna ñu jël buub ni ñëpp yóbbu leen na nationale Pikine bi fii juuxu leen foofu ñëw commencé dajj gis nga sama doom bi depuis depuis dimanche. sanguwuñu soluñu lekkuñu naanuñu ñoo ngi si naaj bi démb ndox taw bi ñoo ngi fii ci kawam si suñu sotteeku suñu doom yi yëpp dañoo feebar dañoo soj am nañ anémie xale yaa ngi feebar nañ mag yi feebar nañ ma sama yaa ngi tëdd fii mère yaa ngi tëdd ci biir fii am ñu fu ñuy dugg naaj bi seen ñi ñuy wàcc ñii seen tension ñoo ngi yéeg ñu ngi ñuy dóor ay lakkar mase tey sal xaw a sedd di ñu sànni ay garanaat suñu waxee mu du ñu dugg léegi nooy dàkkee nit amul yëre amul dàll amul dara xanaa kañ ñu may ñu avertir même bu dee ba 24 heures mu ne leen jël si li ngeen war a jël ngeen génn waaye bitig yaa ngi nii kenn xamul ñaata million lañ fi tëj ñu naan jox nañu avertir jox ñu benn kenn avertir dañoo ñëw kay jaay di doole waaye affaire bandi boobu ngay gis ak loolu noonu ngay gis amul tur bi nag moo fi des ndax kër ku dem ba jàpp jàkk nekk fa lépp nekk fa xam nga ne fa am na jàmm bu ne kii de nekk nekk fa xam ne ay jaay boppam. di def ay lu ne def naka naka sa dóor amatuñ nañu jàppale ñu jël suñuy bagage ñu jóge fii ndax ñu ñoo torturé dañuy def lu leen xamante ne lu leen neex ci ñu sànni ay grenade ñu suñuy doom yi dañuy sànni ay lacrymogène taw bii dee taw fi démb suñu doom suñu ñu gis nga gis nga sama doom bi yenn saa dañuy def fii ñu ñaan ay yére pour ñu mën a solo suñu doom yi ñun bu ñu solee lii ba léegi mun ñoo gis nga ñoo ngi ni pënd nañ salte nañ tilim nañ suñu bagage yi mu ngi jug ci biir da ngay ñëw ñaan saraxu saraxu ba da ngeen suñu jëre yére ñu jël suñu bagage ñu dem ñu lu ñu toog fi am ñu julli ji tëj seen li tax ngeen toog fii seen i bagage ñoo ngi ci biir la ñuy yee 6 heures du matin am na ñoo xamante ne 4 heures lañ leen yóbbu ñun 6 heures du matin la ñuy yee surmu saa surmuñ ko ci biir lañ ñaan ndox ñu surmu gis nga soxla si li ma lay wax nii ak sama bakkanu doom am nañu wasin arène nationale Pikine fii jigéen ñi biir ba biir ba ëmb ba diis xam na fa ba am ñu fa accouché ba dee nañu nga la waay nañu jàppale sonn nañ torture façon façon torture boo xamante ni police torture ñaan nañ raam nañ suñu xasee ba dugg ñu ngi ñuy sànni ay grenade wala sànni ay lacrymogène ñu ñuy ñu ñuy ñu ñuy sànni ñu ñuy daw suñu doomi di xam am ñuy crise metti na ba si yena min kadi miɗo wanno ɗo nokkure miɗo darni cuuɗi batima fof miɗo darni batima fof waɗi toon jakka ka juule sambourno gay jeɗɗi e jakka min e ɓeygure an fof ɓeygure an nden fof e ɓiɓɓe an ɓen no nder ɓe ari ɓe bonni ɓe jonnali men délai hay dara e mawɓe ɓe gurde fof ɓe naɓi ka genno delul delu wakul délai wakul délai wakul délai jelna sama doom yëpp yóbbu si si si instant. yow def nga heɓi ɗo fukki at mi ak ak ñeenti. bagage bi beneen bi yàq na beneen bi daw na sama doomu ɓe ƴetti koy bedoy ɓe luuɓi ɓiɓɓe amen ɓe ŋaaɓe yalti pi ɓe luuɓi. ñoo ngi nii sonn nanu sunu dëkk la ñu jógee. ami bagage yoo xam ne jar na cinquante mille lépp a ngi si suuf si danoo sonn son sulli ba bëgg a sulli ba bëgg a dee yaakaar suñu njaboot gi ñoo ngi ne amuñu dara lekkuñu naanuñu sanguñu bërki dem ba léegi ñoo ngi fi. ñaata fan nga ñaata année yow nga dëkk foofu si am naa fi ñetti at am naa fi ñetti at bii mooy ñetti at nii ma dem bawal war a jël samay bagage yóbbu ko yóbbuwuma ko len laa ngi si néeg bi lépp jaxasoo aw ma dara sama yére yu baax yeeg yëpp. mu ci biir néeg bi. sama bagage yëpp mi ngi si biir amatuma dara lu ma sol ak sama njaboot sama gaz yi lépp mi ngi si biir te man bi may dem sa damaa fay lu yaas. yéen a ngi doon fay seen néeg yi ñaata. ñun 15000 lañ doon fay seen yi tabax yi vingt 20000 ñun suñ borom kër bi may dem fay naa ko ba jox ko 3500 yi ma ko deseel. bilaay bilaay est-ce que borom kër gi waxu leen ne woon dañuy daane kenn yegu ko man démb la ma sama benn mbokk yaay seex woo ma jóge Touba démb ay 4 heures laa egg si ba tey ma taxaw gisuma benn bagage bu ma war a sol. man yow si cité bi nga xamante ne fi la ñu toj yow sa nga dëkk. fii laa dëkk sama lépp fii laa ko amee ndax si cité bi yàgg naa fi depuis 2009 ba léegi maa ngi ci bi liggéey naa fi lu ne sama kër yëpp la ñu toj man bu ma ñëwee dëkk laa jóge barke dembu avant may ñëw damaa woo chef de quartier bi samedi laa ko woo ma ko sëñ bi munoo waa ma ne ko yow yaay suñu délégué de quartier waa ma ne ko ah ñun kat suñu koñ mi. dégg naa so toj nañ son bu ñu jógee boobu suba foofu lañ ñew mu ne ma boo tëddee nelawal ñooñu dañ leen a jox délai mais fii joxuñ leen délai yaa ngi dégg fii bokkut ak son do capital ma ne ko ah grand man ne instant yi man maa ngi village te damaa nekk ci tour de famille ma ne léegi suba bu ma xëyee nu mu métti métti dinaa ñëw bu ma ñibbee ci tour de famille bi am naa deux jours yoo xam ne lekkuma ndax damaa bàyyi sama matériel bàyyi sama njaboot bu ma ñibbee ci tour de bi ñibbisi si dugg sama kër sangu sax defuma ko yére bi ma yóbbu moom laa toogaale di xalangu di xalangu bu 4 heures ma jóg xippoo dox yaa ngi dégg dem woo borom saret mu yéex ma dox ba presque egsi naa garage borom sare bi di dooma dab ne ma da ngay dem man ko damay dem bu ma ñëwee biis bi njëkk a ñëw 5 heures bi biis bi njëkk a ñëw damaa taxaw jëluma place defuma dara damaa ñëw jël sama place taxaw bu dakaar jam ñaajo laa jëlee place toog bu ma ñëwee fii damaa ñëw jël fii taxi sama benn gaañ laa ko fekk fale ci pooba bis bi ma duggee euh, nu mu tuddati sax pardois def maa yow bo kolobaan ma doxe kolobaan bo fii bu ma duggee boobu fekk ko boobu mu gaare taxi ma ne ko naar mu ne ma ne ko dooma dimbale nga yóbbu ma fale kersiñ ba ndax damaa war a jaal lijjante sama xaalis bi nekk ci biir ah bu dee mën naa génne sama bagage wala sama yére ma génne ko ndax man yoroon naa foofu bitik yoroon naa foofu place presque juróomi place foofu boo yëpp instant yi dañuy jaaxle. juróomi place nga yoroon foofu si biir cité imbécile. cité waaw yoroon naa juróom place ndax dama doon jaay fasut jaay bitik yaay ngi rek ak booy nekk foofu di sarre dibiteer bi fu nekkoon sax man maa ko tabaxoon place bu gënoon a rafet boo duggoon li laaj ci sëriñ kamam ñu ne kii moo ko moom ma yor ay yor ay nit yoo xam ne dañu nekk foofu te ñëpp ci man la ñu yaakaar buñ ko tojee bu ma diirwee ba dugg benn sandarma lañ ma boole ma ne ko ah man de essence sama bagage mu ne ma loo fa bàyyi kayit wala lan ma ne ko sama kayit moom laa fa bàyyi mu ne ma ah ma ne ko waa ma ne ko kon baax na léegi ñu boobu boole ma benn essence ma dugg ci biir bu ma duggee sama néeg génn sama carte d'identité ak sama papier ndax dafa am benn kër gi ma mujjee jaay foofu 6 million motul sax deux mois barki arxuraan ak fu may toll ne ak li may si sama njaboot bu ma ko am. te kayit yi kayit gi yëpp mu ngi ak yow. kayit yi lépp man bu ma duggee noonu jël sama kayit ak li kayit yoo xam ne dama ko retiré banque bi may fay ker gi lépp mu ngi ci man léegi bu ma defee noonu ma dugaat ma ne ko léegi nag xaar ma woo sama borom bitig bi ndax ne na xaalis bi mu ngi ci néegam bi ma ko woowee benn mbuus laa fa génnee mayu ñu ma jàmm ma daji néegi wàcce walis bi benn mbuus laa fa génnee kenn mayu ma jàmm génnal geenal ma dem tajak sama benn mbokk bu xam ne seen kër laa yaro Pikine bi may jaay ndox mbuus ñaar dërëm barki arxuraan seen kër laa yaroo seen baay moo ma yar ak seen yaay di leen jaayal ndox ba booy mag ba dugg armée bu ma gisee dafa dar bopp bi ne ma kii du seex ma ne ko man la mu ne ma looy fii ma ne ko fii laa dëkk fii sama place la ñu mën maa may alma marto ma daj sama bitik dugg ci biir wéccet bi laa wéccet bi laa jël fekkuma fa dara ndax xaalis bi yëpp duñ ma may ma wax kee duñ ma may ma xool mën a xool xaalis bi ma yéen xanjar bi def ko ci siwo yéeni ko moom laa yóbbu ba stade kuñ laaj ndox ñaar ndox pour naan ma may la tib ci wéccet bi jox la boo keroog ma ñibbisi fii bu ma ñëwee fii diiri waat fekk sama teere yi ma jëndoon kayit yëpp mu ngi ci biir lépp waaw fii laa doon liggéey ndax man fii laa liggéeyee yaay ngi dégg laa liggéey yow kon li nga si yàqu la si xaalis xamoon na la toll. instant moom dëgg-dëgg ne yàlla moom bu ma koy wax dëgg moom instant yi à peu près moom 15000 moom war na ko mot ndax man yoroon naa fi ay ker ñii yëpp man maa leen luwee kii dekk na sama ker ak am na ku toogoon fii léegi. yow yaa man maa leen moomoon maa seere woon lépp mais kenn waxuma délai kenn waxuma dara te lu gën a métti ci mbir mi nit ki xam ne dafa liggéey alalam ba gis ko au moins nga may ko batma mu génne bagaasam gaz yi suñu gaz yi man li ma jàpp ci sama gaz barke arxuraan laa wax de 57 gaz ci li ma jàpp ci sama gaz gaz 9 kilos yi rek 12 gaz la ndax fas bu doy yoroon naa fa ñaata gaz 4 gaz bitig ba 8 gaz yu mag gaz yu ndaw yi yoo xam ne 6 kilos la 25 gaz gaz yoo xam ne 3 kilos la 35 gaz te loolu boo ko xaymaa rek mënu ma laa wax ñaata la bitig bi ñaari frigo moo fa nekkoon yaa ngi ak donc bagage yëpp dañu leen boole yàq. lépp ñu yàq. lépp la ñu yàq man fu mu nekk nii damaa yenu ay saaku ceeb boo sama faar yi di métti dugg nañ fu ne nag journaliste yi lépp man dem naa wow lu ne dugg naa ci lépp man li ma bëgg ñu jàppale ñu ci ngir yàlla ak jama suñ Tuubaa ndax lii dafa métti nit ki boo koy génnee sax bu dee ay xar ngay génnee sax xanaa da leen wutal benn baar mu xam ne da leen wax ne carrément toog leen fii ah ñu lijjantal leen pour ngeen am dëkkuwaay wala bu ngeen mënta am dëkkuwaay it ku nekk nga mën a jël sa bagage dem ñibbi fi nga jógee yaa ngi ndax ñun ñii dañu jaay suñu juri ñëw ndakaaru gii fii la ñu dëkk man Fatick bii laa dëkk Kër Martin foofu laay wàcc chaque jour foofu laay wàcc. kon daal nañ la lu bëri yàqal nañ ma lu bëri. ak ngeen ko noonu moom waa ji nga xamante ne daanaka. démb bu ma duggee damaa dem di lijjante di lijjante ba jot sama xa kayit yi bu ma ko seenee gars yi ne ma doo dugg ma ne ko damay dugg ndax lii la lii moo ma dugal ci biir to damay dugg te damay jël sama kayitu kër yi. ma ne ko enveloppe boobu ngay gis bi ngay seen munoo ma ne ko moo ma indi bu ma gisul dara it sama néeg ñetti frigo moo fa nekkoon. barki arxuraan ak sama armoire ak sama yére ak sama yére soxna yëpp ak sama yére doom yi quelque yére laa fa génne mais bi ma gisee enveloppe bi police bi ne ma doo dem ma ne ko damay dem ndax sama enveloppe bee laay jël mën naa la wax ñaata kayit moo ci nekk nga xool ko ma ne ko benn trois fois yi yoo xam ne ay arxuraan lañ ko bind teere yooyu Tuuba lañ nekk mun a ma ne ko mu ngi ci biir boo ko gisul nga bàyyi ma dem bu la neexee sax nga rey ma dem sama yoon woon na arxuraan bu mu ubbee gis ko def maa jox sama kayit lépp ma génn mu ne ma amul génne dara demal te loolu dafa métti ndax nit ki moom boo ko feegee au moins waaw au moins ñu gis sa alal dem naa ba ci bitig bu fu mu nekkoon may génne dañ maa mujj a daq ne di génnal saaku ceeb bi ci biir laa ko yéenee ba fii sama xarit yi nekk foofu di ma jàppale ñu yéene ay saaku ceeb di génnee te loolu dafa métti xoola saaku ceeb bi mu diisee ay bidon duuli mënoo yóbbu dara gaz benn gaz laa génnaale benn gaz te sama xarit def maa ne ma carrément di ci néegam la nekkoon ma ne ko jëlal ndax def soog ma ñëpp ci sama kanam la ñu màggee ba fi am sama sut lu ko dalee fii ba fii fa lay damm mais mais juróom sax lañ may wooye man nag bu mel noonu bu daanoo suma kaw dafay métti ci man loolu ma jooy sax ndax mag la laa fi ne lu ma amutoon bu ma ko ñaan bu ma ko yàlla xañee dama koy muy nag te xam ne am naa lu ne waaye lii moom ñàkk naa ndey jooyoo ma ko nii ñàkk naa baay jooyoo ma ko nii ñàkk naa borom kër jooyoo ma ko nii waaye dama yërëm askan wi man laa dëkkoon ci école bi fii laa dëkkoon waaye lii moom lii moom métti na ma ka nee ma yàlla may na ma fa ma ne waaye doomu aadama yi ni leen toroxalee nii métti na ma man na yàlla ma xiiroon ci njaboot gi rek ma ñëw toog nekk ak ñoom waaye métti métti ki nga waxal nii amul lu ma def sama tànk bi gis ko ni mel damay ñëw sax wax ko mu jënd ma garab moom sëriñ mii romb fii sama xol fi ne dafa tooy lii daal yal na ko fi yàlla na ku xaj boo gis sax am na lu ko yar waaye ni nga ko doxalee moo ñaaw waaw lu moom ku askan wi yaakaar naa ne yéen ñu jàng ah, rafetlu wu ko de miti na de. mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ni ngi seetaan émission xew-xew gis ngeen fi nga xamante fi la taxaw mooy mooy si bundu cité moom lañ doon démolir mu bokk si bidonville yi nga xam ne moo si Dakar muy fii nga xamante mooy cité imbécile moo fi am tam dégg ngeen ko tungu ne du teew ñuy nataal ñi nga xam ne def nañ fi ay fukki at fukki at ak juróom fukki at ak ñeent ku nekk exprimer na li nga xamante ne moom moo nekk sa xol comme ni ñu koy faral di wax ñoom bañ ñu woon dem mais buñ leen waxoon ne nañuy dem itam ñu dem ndax ñoom ñu fi dëkkoon ñëpp dañ doon fay luyaas ñu ko waaji waxee rek du ay defkatu ñaawteef ñoo fi dëkkoon mais ay néew di doole moom moo si ëppoon lu si am rek ñu doxal yërmande parce ku si nekk rek boo tëddee di nelaw bëgg nga yeewu ak jàmm ak salaam yéen tam di leen masawu baax a baax képp ku ci yàqule ñu ngi lay masawu baax a baax incha allahu rabbi rendez-vous mardi lay doonaat ci biir 7TV télé bi ñu nuru ba nopp di ñu dajale yéen itam lépp loo xam ne xewle ngeen ko seen ay gox mën ngeen ñu woo ci numéro boobu écran bi jaajëfal naa ko Cheikh Saad bu moo yoon caméra bi waaye oto bi jaajëfal naa leen bu baax a baax su lay ci ci merci beaucoup